nil Benno Bokk Yaakaar désiste Sonko résiste bu dee état dong mooy doxal droit yoon lay doxal Sonko du sax àgg fii du sax àgg enquête ba ca capitaine Touré lay yem dun fi sax àgg bañ naan ay désiste ak résiste nil Benno Bokk Yaakaar désiste Sonko résiste état bi yow ñan ne ca tet ñi ñëpp ñan la du waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñooy def leen neex ñëpp naan l'état l'état balaa maa dee ñu làqatu ci ginnaaw état alors que ñoom ñoom si boppam ñooy def leen neex Benno Bokk Yaakaar APR et il nous amère avec l'état l'état l'état l'état ban état yéen bu ngeen bàyyeen état rek libre libre gis ngeen juge ba nekk Ziguinchor ak procureur ba nekkoon Dakar la wax Ñom sax dañoo rus xam ne bu dé droit donc bañu waxé waxee bi yépp doon rire. vous devez avoir honte ñan l'état l'état des l'état ban état la justice est rendue au nom de l'état la justice est rendue au nom du peuple état xam nga lu muy xool lan la peuple yu bëgg wax leen ma kan moo fi génn di manifester wu di organiser lu nekk naan Sonko nan ko tëj Sonko dañu bëgg justice dal ci gam Sonko parce que ñoom sax xam na ni Sonko justice mënul dara ci moom parce que deful dara justice du mook état waa Benno book Yaakaar nag benn nit toog ak gangam naan non Sonko dañ lii dañ koy lii te Sonko booy xool lan moo tax ñu génnee ñu ci organisation des nations des droits de États-Unis 1er janvier nous war nous ci Sénégal parce que justice bi rendre au nom du peuple Le peuple manifesté partout dans le monde États-Unis France partout matin midi soir Il assassinat assassiné jël ay rapport lu ko bu gars defal des ni mais avons li xew Sénégal en janvier kon vous war a en kon yéen Macky fait organisation des droits de l'homme été nañ ñi Sénégal ñun voilà yëfi caaxaan yooyu moo tax ñu génne ñu ci cek ñan la peuple bi ñoo manifesté wu partout pour wane ni bëggatuñu bu ngeen jugee naan l'état l'état bu ban état nit Benno Bokk Yaakaar léegi bii moom c'est mort man ay recours bi ñuy def yooyu yëpp c'est mort léegi ngeen naan bu ma mbay ak ñaabi bu ma mbay ak ñaabi xam nga lu mu may jox man comme théâtre sama grand sanex maa ngi koy nuyu théâtre am boobu nga xamante ni la yor dox ba siyaagi gilise daanu jabar ji taxaw mu bëggoon ko fasé xamul nan la koy def mu ne ko yaa li ma glissé daanu fasé naa la maanaam rapport boo xamante ne àdduna bi yëpp wax nañ ci ba yow nga toog ni rapport am na sa premier ministre Amadou Ba ni rapport am na ñëpp wax Sonko wax nga ni i waaye yow doo candidat bi caaxaan yooyu loolu ni mu oyofee sax oyof man dam ci dul ne sax di calculer ban magistrat mooy toog fële cour suprême naan wi euh, Sonko du nekk candidat te balaa ngeen di àgg sax ci dossier Sonko ana bu Bart bi nga xamante ni deux ans ma nga fa tëdd ma jàmbal duul jaañ boobu duulkat boobu ana dossier diffamation moom ma nga fa tëdd balaa ngeen laal bu Sonko li jënti leen bu ma jàmbal li jënti bu bàtt ak yëkk fa jiitu yëpp te yooyu fii ba 2028 sax ndax la fa ne ci dossier ak bëri ngeen naan da ngeen di jéggi yooyu yëpp jëli bu Sonko non c'est que des fois ça fait rire quoi bu ñu nee l'état c'est pas du tout l'état te sénégalais ñoo ko dul nangu sax yëpp caaxaan yi ñàkk fayda yi des fii duñ ko sax nangu Birame Souleye nag li mu def kéro je suis parfaitement d'accord Sonko new fi il faut mu jël responsabilité am ay waa taxawoog liñ ba nu jàppee Sonko léegi ak ba ñuy torturer kan kër ji gis ci ñoom personne ñëpp a croiser seen bras au contraire di ñu dal di ñu gën a enfoncer tu as raison de les dégager ku amul day nàmp maam patriote yee ngi fi sympathisant yee ngi fi confiance bi jox jox Sonko confiance on s'en fiche des autres ñu bëgg ak ñun nekk ak ak sérieux ñi bëggul nañ dem bu len kenn ñëw naan nous waro len té séparé ban séparé wu yeen ba assemblée sax luñ vote bu jot dem Abba war Abba

trahir ba pare yaakaar da nga ciy génneeg noonu tu vas voir avec eux gars parrainage bi nag parce que Sonko li tax euh, système bi gars yi bëgguñu ko bëgguñu Sonko ñëw dafa am benn wax bu Cheikh Zayed waxoon parce que même wax boobu man des fois ma xam gaay gaay na non comprendre boo yoree état ba pare ngay xam yenn affaire yi li ne ci biir ratatata discours boobu man laa gëmul ndax ki ma jàngal politique la man ki ma jàngal politique ban jamono la fekkee jamono bi nga xamante ni ay nguur bu ngeen d'accord gars yi dañ lay sax rey les années soixante dix quatre vingt moo gënoon tàng fopp xam nga léegi réseaux sociaux yi ngi partout même Macron bu bëggoon indi yenn manigance sax Sénégal su population bi taxawee dëgër sax dañuy xam li xew gérer ko mais bu bu njëkk loolu yëpp amul. ana ay président Libye bi Kadhafi ay Saddam Hussein ñëpp ni leen gars yi éliminé période boobu moo gënoon a metti fopp te dafa amoon benn wax bu mu waxoon xooloo Koweïtien yi bi Saddam ñëwee bëgg récupérer seen dëkk ndax dëkk bu ndaw la ak pétrole fa am yëpp cheikhu Koweït bi jaaxle américain yi dañ ni boo ñu joxee ñu am contrôle ci pétrole bi benn fan ñu génne la Saddam gaa yi ni ko d'accord américains yi ñëw benn fan Saddam delluwaat reculer joué naa Koweït deux ans Koweït naa di saxal américains yi foo tourné seen base militaire yëpp ñoo fa ne ñoo contrôlé dëkk bi di gérer sécurité Koweït am benn part ci pétrole bi voilà Cheikh Zayed dafa waxoon bala muy defar émirat daf dalena wo ni len dañu war bolo nek ben sino yenen yeneen dëkk yi dinañ ñu jël yenen six états d'accord ak Abu Dhabi muy sept d'accord accord britannique yi mom moy expliquer mu ni britannique yi sont les premières personnes yi tok ak man reetaan ma ni ma non li nga bëgg def mënul ne impossible fi ku ne da ngay bëgg jité jiite même buñ la jiite lé do dem radio jappal bàyyil Cheikh Zayed nee na ma tontu len ni len loolu khalaatu ñett wala ñeenti nit la mais sub mais law subhanahu wa taala fim ñu bëgg a àggale dinañ ñu fa agalé na xoli bolo nek ben ñu gëm suñu bop na doon ma wax loolu demb tay ñoy sukk sama kanam ñoy sukk sama kanam te ñooy suki sama kanamu njabot sama kanam yu sët di len ñaan ay marché pour gagner dara fi ci dëkk bi ñu ñuy tutil di ko yóbbu seen dëkk te non la démé premier puits pétrole bi ñu exploiter anglais la jox marché bi tegal leen ay conditions yu wóor vingt ans yi jeex américain ñëpp ñëw mu taxaw nag di xo di xool nu mu ko neexee ndax léegi mën na puiser boppam di dem ak dëkkam mëla mëla fondement dëkk bi kook dafa fondement dëkk bi doom ji ñëw tabax mu jug tabax dëkk bi maanaam mën ne tabax mu jug mooy defar nit ñeeg defar jàppal baay loolu beneen histoire la biram Souleye li mu def perfect maa ngi koy encourage naan ko très bien leader niig lay mel ils n'ont qu'à aller se faire ba mu mettee ñun patriote rek a fi nekkoon ay taxawook walloo xaw ma taxawoog man xaw ma sax lan lan tudd ma leen sax parrainage yi nag gars yi seen le boobu ñuy naan ay Mame Mbaye Niang boo deful ndànk du maa leen ko wax boo deful ndànk ñu puus ko puusaat ko naan wey den ko puusaat i va le programmer on la ba duñ ko programmer c'est trop léger parrainage bi nag bu commencé na ak accéléré benn 5 jours, même si vous 1 million de songs et 2, je veux moitié électorat, 7 millions et quelques années de fil chip, moitié bip non parrainé. Lorsque vous nous parrainez, vous avez un conseil constitutionnel, vous avez un conseil de candidat. Dara, Liman Malanka, parrainage de Natar, Khumbu, Bri. Conseil constitutionnel, vous avez un conseil de candidat. Vous avez un conseil de candidat. Parce que imaginez, fiche de la majorité, vous avez li ci ëpp ñëpp ñu wara voter voté nee ki lañu bëgg ah da ngay naan dédét mënul né impossible étudiant yi nak lay tëjee étudiant Cheikh Anta Diop kenn mësu leen jam naani ni yeneen étudiants yi nekk Sénégal yëpp ak université yëpp ak élèves yi enseignant yi yeen ñëpp da ngeen mësa bolo nak ben kenn mësu leen yab amul gouvernement bu mësa ñëw yab étudiant wala yab professeur wala yab ense yab enseignant yi mësu mësul am taxaw leen dëgër kecc ni université Cheikh Anta Diop dafa war a ibbi seen i naataangoo dem jàngi professeurs yi dem jàngale ji dafa war a ibbi nii wala ci nee ñu jox leen date précise pas après élection élection pour lan te nit ñi di jàng élève yi am leen fullaak fayda kenn mus leen yàpp da ngeen réunir lijjanti ko organiser ko da ngeen war a jàng te booloo la nekk benn